ne mën na ca. Mm-hmm. ah moom daal mën na ca. Mm-hmm. mën na ca daal ba ba yàlla dogal. Mm-hmm. ma enregistré ko ndax. mun na wax. waaw bëgguma ko woon a enregistré à son parce que loolu c'est un délit. Ah. parce que xëj na. su ma yoroon yenn jikko ba ma njëkkee expliqué version bi. ma bës sama portable ak yooyu di ko enregistré du ko tey. voilà kon dina ko kon bàyyil ma tës. bàyyil ma tës alaaji. Mhm. bu may pare dix heures. ñu ngi Pauline Thiam dana ka. nee nañ nag. yow de saa dañ lay gérer nga fàtte ma. déedéet déedéet déedéet déedéet bokkul ak bii alaaji. idée bi walaay yaa ko yëg maa la ngemb de nee na alaaj dugal ci àll bi daa yaa ma ngemb alaaj ah. de ngemb ba pare ñaanal ma ah, ah, xanaa bi moom parce que nag lu ne mënoon mënoon na ma cee dal ah jàmm rek fañ ko defee xam naa ne sori na lëndëm waa Suisse ak waa Bordeaux waaw waaw jàpp leen de fii la de fii la de léegi man boo ne ma ma dem ma dem bu dee wóolu nga gars li gars yi wax. waaw waaw waaw waaw Pauline moom wóolu naa ko. c'est que ki la yónnee message bi kenn laa xamul ndax dinaa ko wóolam déet. waaw ah, ah, Pauline ñoom la di ñoom ñooñu la daal waa bureau Pauline boobu daal. alaaj Pauline moom wóolu naa ko. ah ah kon bàyyil ma tës. waaw bàyyil ma tës. comme que ko gisee. waaw waa Paris ñu ngi lay déglu de. ah waaw ah, baax na Jibi Gueye Ndiaye na ma naa tës kon naa tës garaaw. Soda Ngeer nee na ma naa tës naa tës. waa Italie waa Suisse. Zal Touré nee ma ma kii Cheikh waaw nee na mën naa tës kon garaawul bàyyi. Mbacke man États-Unis. déedéet déedéet Cheikh Mbacke suñu xarit la bu ne fi usiteel golf. waaw Mauritanie ñu ngi déglu. ah xam nga garaaw. ma dégg. Eh, Grand na ma naa naa tës garaawul Kalidou Ba. eh ma naa tës. kii nee na alaaji garaawul leen. dem Demba Sibi. après maire xombal nee na ma naa yow de loo wax def ko garaawul amul problème. kan Demba Sibi. waaw non garaawul bàyyil ma tës. moom kay bàyyil ma tës garaaw. sama nijaay galas jan. yàlla naa waa Corée du Sud ñu ngi lay déglu ñu ne ñu. laa ilaa alwalit nee na ma Modou Ka. Corée du Sud wallaahi Modou Ka Corée du Sud. kooku nag xam nga mënu ko ñàkk ba ñu tudd ndax fa mu ne. nga nu mu tudd. Ka. ah Modou Ka moom fu mu dëkk du sori na di. Eh. Corée du Sud wallaahi. ah ay da caa nañu waaye. mais da caam sama jigéen baa ngi nii ak ñoom faama caam sama jigéen ñi man ak yéen dañoo yàgg ca daaw da caam ay ca waay ay ca waay ay ca waay deuxième master bi la ñu bëgg a dégg ay ca waay ay ca waay na ko dal ab sa ndoom nuyu naa la na ko dal na ko dal na ko dal <laughs> Moussa Diatta nee na ma naa tës te yàlla rek moom doo nga fa nekkoon kese moom doo nga mën a seede bu dee témoin am na mhm. même xale yi jël si aji saar alaaji waaw seen témoignage ba léegi ci mbedd mi la yem day def aji daa tuumaalaate mais le fait ko dañu koo tuumaal. waaw ki ñu soxla bu kàddoom dafa toog kenn la ñu soxla. ñu ah. ngi nii de. waaw bas naar ku la ko ñamal nee ma tësal. yooyu yëpp nag alaaj nee na ñu ngi tës non ñu ngi tës moom kay xanaa. kay dégg mhm. Mhm. kon nag ma tàmbali ana sumeer. gars yi nee ma naa tës. grave Pauline Thiam. je mhm. nag li mu wax daw na sama yaram ma Chérif yërëm ñu. <laughs> Arabie Saoudite kii Xaadim Sène Arabie Saoudite. Samba Day. Uh-huh. waaw. Xaadim Thiam directeur bi léegi dëgg la. garaaw la alaaji bàyyil rek ma tës. kuy directeur général ah Pauline Thiam bàyyi kon kon dëgg la kon non non non Pauline moom lu mu wax Pauline moom. Chimère Diop. xawma kan waaye moom lu ma wax rek. moom dëgg man man man. Chimère Diop naa ko. lu gëm rek signé. Chimère ndaw si. ki nekkoon saal ba commencé wul. te daa ump ko la ñu bëgg a dégg. léegi kaay waay léegi ki nekkoon ca ba te maasewul. damay non non bañ maase. ah bokk na ci ñi doon maase. non non non alaaji li nit ñi umpale dafa bëri de. alaaji alaaji maase na. Mhm. moom moo maase nag. Ah, ah, ah, kon 4 mai la wala 2 mai moom la. léegi góoma de dama ne. dafa maasal 4 mai. léegi ma commencé. attaqué nee na bi ko aji ne ubbil buntu bi. Mhm. am na ko sone xam naa client la mu tiit forcé na ko ba mu dem ubbi. damay cos rek comme ni ma def keroog de. Mhm. alaaj keroog ñu bari bari dañoo yaakaar ni dama laal fépp déedéet dama cos rek bàyyi dégg nga loolu tey damay cos. aji moo ne si gone gi waaw gone gi yeggali ba kilifa gi dugg see. Mhm. nee na lim fay ñëw yëpp mosu fa simi geñoom mosu fa simi yéreem joxe ndoddam nee na jafe-jafe ndodd la waaw maasel ko digg ginnaawam gi waaye tubéy mosu faa simeeku hmm. ci moom ci moom hmm. ba mu te nekkee jékki-jékki nañ ab diir aji def ko signe moom deuxième masseuse waaw ni ko ne ko nii xool def ko nii lii waroon naa nekk télé liyaar ko loxo bi ni ko génnal mu ne ñul met fomp génn ñu toogu biir alaaj déglu de bu baax ñu toog rek aji saar bi baaxul téléphone bi waaw buy wax il faut mu mee libre la pour di mën di dégg yow li ngay wax mm-hmm. xam naa war problème mu écoute la téléphone bi doon am. waaw moom mooy livre ko. Mhm. mu dégg aji ne ko. Mhm. ñëw leen ngeen jël ma pare naa. Mhm. kooku ne ko. ngeen baal ma ci kàddu gi de. dama ko bëgg a wax textuellement. baal ma ci kàddu gi. kooku ne ko alaaji. waaw naa koo xoolal. maanaam ku yëg boppam. moo ko waaw. ne ko. mbaa daanu na. très ko mbaa daanu na mbaa daanu na mm-hmm. nee na moom daal lii dégg na ko dégg na mbaa daanu na mm-hmm. kooku ne ko waaw waaye daal moom nee na diggante bi mu génnee mm-hmm. ak bi aji génnee di wax nee na foofu sëy sa xëju fa waxontuma la ak fóonante yu yu nit yëgee boppam sax xaju fa à peu deux trois minutes. non nu fa nu fa nit yëgee boppam mën na fa am parce que mu ngi dégg kooku ne ko. Mhm. daanu na mu ne ko waaw daanu na waaye nee na daal xam naa ni sëy normal xaju fa waxoontuma laa viol déggoo ma dégg naa la gars yi di ko jël si aji indi test capuchon bi mooy yu ñuy defee test waaw teg ne leen dama ëmb damay dem dañ may jël si Jakarta may jël si ñu génn damaa ëmb gis kat kat waaw mu wax leen ne leen man damaa ëmb commencé mel ni kuy paniqué ah. génnee cinquante mille yi grand bi fay dem jox ko patron bi génnee dix mille may deuxième masseuse mu ne ko lii nag ah mo ca lañ ko yóbbu. aji may ne deuxième masseuse bi xaalis dix mille francs cinquante mille la génne cinquante mille yi lañ fay. nee la Sonko fay. waaw mu commencé. mu dem kees jox ko patron bi. waaw ñëwaat yëkkati dix mille may ko. mu ne ko kañ nga ma daan may dix kat kat bu ñuul kot. ñëw oh. jël si ko ñu dem deuxième jour ba nag. Hmm. aji daa ñëw di jël si bagage am yi yéreem yi ne leen sama papa daf ma génnee ndax li ma ëmb commencé jooy ñoom xale itam ñoom ñëpp ñuy jooy. ndax yërëm ko ndax yërëm ko. mu ne ko añal ba pare mu ne déedéet patron bi ne kon añ bi defaral leen ko ko bool. bool ba du koo yóbbaale yeneen yére yi def sa ñu ne ko sa yeneen yére yi mu ne non may naa leen ko ci la ko wax ne ko aji yow lan ngay def nii lu xew qu'est-ce qui se passe yow am na looy manigance deuxième mensonge bi waxoo aji ne ko jëlal cent mille francs yi te daw mu ne ko cent mu ne ko maa la ko may jël ko te daw génn gaaw dëkk bi dawal mu ne ko mais lan laay daw man cent mille yi du ma ko jël te waxoo ma mhm. waxu cent mille yi jógee ak lu xew mu ne ko jëlal te daw oh laaj xale bàyyi nettali lii sapo bi la léegi ma bàyyi mu wax ko mu wax léegi nag promettre naa ko ne ko sa voix bi nag dama koy changé mm-hmm. comme ni ñu koy defee ci tës bi alaaj benn ñaar du ma wax dëkk bi nga dëkk te du ma wax it fu ma la jële ak fa ma la fekk parce que yaayu yaayu yaayu moom moom moom loolu boo ko waxee day mm-hmm. day gars yi dañuy sib ak yow dégg nga loolu alaaj mm-hmm. jëlal cent mille yi te daw nee na mu làkk ko ci séeréer dangit junni jiim ke doo juf jëlal ñaar fukki junni te daw mu ne ko lu may daw ak ñaar fukki junni fu ñu jugee mu làkkaat ko loolu ni ko voilà ni ko lu may daw wax na ko jànki num de kaa jufaama mu ne ko jangi rek jangi jëlal li te aji woo mu bañ na du laal waaw parce que lu xew xew nii xew te moom nag nekku ca dara liggéey rek. kon jot jotul laal cent mille ko. mu ne ma Ameth man ak aji ak sonko ak yàlla man nag damay te yàlla rek tax su ma doon faral aji lay faral. mais waaye daal li xew daal man sax day lii bañ ma yóbboo police lii laa fa nettali lii yeneen yi nag. doy na waar. Appelez-nous 77 855 07 84. non non non il faut ñu teg ko comme ça waaw non et puis lu tax ñu koy teg ñu mu mu am important ñu teg ko parce que tey la assemblée war a prononcé wu. est-ce que dafay lever <laughs> immunité parlementaire. alaaji ñoo def ba am ndaw si. Ah. Ah, alaaji naa la ko nekk naa la ko expliqué naa la ko expliqué léegi nii ci rajo balaa ñoo tàggatoo. su ñu déglu ndaw si wala. waaw nañu ko déglu daan nañ ko bu baax. mu ne ma dama ubbi. mu ne ko dama ubbi. parce que dama sonn. sànq laa bi ni maa fekk. mu dem ubbi. bi mu ubbee. mu dugal ci naan bi. ni ci ñaan bi jógee maa ko kan la. mu ne ma Sonko la. mais dafa mel ku ko xamul. man tamit ma dugg. jox Sonko. salbe gisuma ko ba léegi de. ak dem indi unité Sonko ñëw toog ñu koy maase dañuy maase Sonko ko maase ko ko mu maase Sonko ba mu maase Sonko ba pare mu génn si bi mu génn see ma ne ko yow amul lay manigance ngay rappi rappi nii rek man sax pour man leneen lay def mais xaw ma ne woon lii la ci jublu fi ma ñaawee njot mooy ma ko déggee muy wax téléphone parce que téléphone am bi dafa am problème écoute mu def ko mail livre mun a wax bu ñu ko defee mail livre wàññi mais maa ngi dégg parce que sorewul mu ne ko waa mu ne ko lu lay jël si léegi parce que ci la dem bi ñëw ko doon ko dix mille nag ñu ma Sonko mu ma ko ko mais li mu nekk ci kër gi moo ngi retraité xam nga ni boo defee loo xam ne wóoru doo toog ñu retraité mu ne ko yow am nga loo mën a blanché de mu ne pat mu yëg ci kaw mu fekk ko ci kaw mën na ko lan la mu ne sama yaay mun mën na ñëw léegi léegi léegi parce que suba daa am fu muy yónni fekk laa dem nañu ne dafa ëmb Zik si texte de bourse tam li wane lii texte la xottu ko ci kaw taabu bi fi tarale bi ne ko ay aju couvre-feu bi fooy dem mu ne Jakarta moo may yóbbu ne ko Jakarta mu ne ah, mën na ko Jakarta la la mën a yóbbu mu ne ma Jakarta ci kuñi lay du ko ko génn ma ne ko waa baax na ci laa wàcc dem nekkati at yi moo ngi nekk si kër gi bëgg ma nag tonton Ibrahima ñu dugg rek wala ñu def dara ba mu ubbi bunt bi dem tonton Ibrahima nag bàyyi si xel parce que woon na jabar ji ba expliqué ko mu bàyyi si xel aji jékki-jékki di dem rek ñu jug ma jug man ubbi ko bunt bi gis groupe xale yu góor xam mooy xale yu ndaw yi daw couvre pour man sax ay agresseur lañ maa ngi ko yuux naa ko aji wàññeeku si mais faalewu mu jàdd bi yéeg ci oto bi lumière yi leer naañ mu yéeg dem mu ñëw ay quinze heures seize heures mu ñëw bi mu ñëwee ñu ne ko aji sa añ baa ngi nii mu ne déedéet police laa àndal mu ne ko police mu ne waa jël leen sama yére yi loolu lañ soxla rek jël leen jël quelques yéreem lemu ko sax yu tilimee bi set yëpp mu ñuux ko ma ne ko comme police na àndal kaay mu gunge la muy dem ngay jooy jànk bi du jooy parce que ma ko yërëm ndax nee na papaam ko génne ñu dem ak ñu dem ba si oto bi li nit ñu di wax di weddi àdduna nit ku nekk da war a wax rek te yàlla rek tax ndax man li may wax dama ci am lu leer naañ te su ma wooyee ma jaaraat ñu dem ba si oto bi tap-tap bu ñu boo xam ne dañ ko vitrine ba doo gis aji xale bu góor bi toog aji bi muy ñëw xale bu góor bi wàcc aji dugg dend ak benn xale bu jigéen ak xale bu góor bi kon xam naa ci ginnaaw a nga sax ak kenn ki góor ki nekk ci kanam di dawal ak keneen ku góor ki nekk ci kanam kon xanaa du cinq personnes ci oto bi aji dem même pas trente minutes patron bi agsi ak police dañuy enquête wax ji nii la demee dégguma yuuxu dégguma dara loo xam ne Sonko def na ko ci biir lii bi wala moom te moom moo ñëw versé ba yëkkati xaalis bi jox ma ko loolu la demee waaw ko yow boobu nga gëj a gis aji léegi nii wala ak dëkk mu def loolu ba pare. Mhm. ba fi ay bagages am boobu lañ ko mujjee teg bët. au jour bi mu dugal bi histoire bi amee am ba am ay trois jours. Mhm. mu dugal statut bi jooy. mu envoyé ko ay vocal mu ne ko yaa ñàkk ko com yow yaa def lii yëngal réew mu yëngu nga naan da ngay def ay yoon mu lii message bi bloqué ma boobu laa ko mujjee dégg te boobu laa ko mujjee gis te boobu sax tontu ma. yéen ñaar xanaa ay mbokk ngeen. maag aji. Hmm. maag aji duñu ay mbokk de. ma doo leen ay mbokk. déedéet mais moom mayu la woon xaalis yëkkatiwul woon xaalis may la wala. ak yëkkatiwul na dix mille francs. bi hmm. Sonko génnee may ma ko. mën na ko lii nag ma Sonko moo ma ko may. en plus biy nekk ci bureau bi. Hmm. newoon naa ko aji. yow lan moo tax ngay def ni lu la ko jaral. mu ne ma loolu moo tax ma bëgg la jox cent mille francs. Hmm. nga dem. man nag ma bañ. mu làkk ko la ko si.